tedd bu màgg bi di 18 safar bi nga xam ne moo ko indi bi ñu ànd ak njabootu Serigne Touba gi ko ànd ak Serigne Mountakha mu ñëw fii te inigiré ubbi dagg bi bàyyi fi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir ak mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoom la bokkat sëriñ Touba li tàmbalee ci kër Serigne Modou Moustapha ba ci kër Serigne Mourtada ci seex yi ci bayfaal yi ci bokk yi ñépp tey ñu ngi ànd ak taalibe yi monsieur le président de la république ànd ak conseil municipal bi ak bureau municipal bi di la dalal jàmm fii ci dëkk bi waaye di la defal li ëpp solo ci wax ji mooy nit ku jëf-jëf joo xam ne gisaguñu ku ko jëf ci taarix gisaguñu ku ko jëf ci réew mi loolu moo mbégte yi gannaaw boo doxee tànk yiw yi nga xam ne yàgg nga ko dox nga def ko ci dëkk bii loolu moo tax tey mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñooy toog nii di jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci région de Diourbel dëkk département Mbacké dëkk Touba ak mbooleem jeune jeune yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ci commune de Touba ak mbooleem bokki taalibe Serigne Touba yi tey ñëpp monsieur le président de la république ñoo ñi nga jàkkaaroon nii ñu di la am yow ci yow yéene am ci yow cofeel am ci yow ak jàpp ngir jëf ji leen defal ndax président de la république sa jëf dafa ëpp say wax lu ñu bare bare bari seereel nañ la ko te sama jàmbaari lislaam de daf ma waxoon ne as boo ko teralee boppam la lay fayee murit yi nag teral nga leen ñoom de munuñ leen a munuñ laa faye seen bopp ndax jox nañ seen bopp sëñ Tuubaa te dootuñ ko nangu waaye danañ la teral am nañ yéene ci teral la teraanga joo xam ne da nga xam ne mosuñu koo teral kenn ci li ci seen kanam sëriñ Abdou Lahad Mbacké daf ne nit boo ko defalee lu ñëpp gis dana la sant ba ñëpp dégg ko te sa jëf ji def nga jëf joo xam ne waxuma Sénégal waxuma communauté mouride waaye Afrique dans le monde entier ñëpp gis nañu ko ilaa Touba bi rek ci sa benn mandat dafa doyan teraanga nga def ko in teg pose première pierre bi giire ko ci ñetti at ñu defe ne jëf dootu mënatul leneen am lu toll noonu nga jóge fi waxuma hôpital bi ñu ne mat hôpital Matlaboul Fawzayni bii biñ ne am na jafe-jafe nga dégager six milliards cinq cent def fi benn immeuble boo xam ne yaakaar naa ne Covid 19 bii tey bu doggul loon ak immeuble boobu ci Touba ak li ko wër dana bari jafe-jafe waaye li mbooloo mi doon bari bari évacuation yi nekk ci suñ région yépp ñëw nañ fi ñu accueillir leen yàlla dogal faj leen ah, doctor ministère de la santé ak personnel am liggéey ci liggéey boo xam ne du luñ mën a xayma xanaa da ngay xool statut yi ak li ñu bind ak ni op mat malade yi toll ak li ñu traité loolu rek moo la ko mën a wax waaye bu dul loolu xam ko dana jafe nga jóge ci loolu ñëw ci assainissement eau usée bii nga xam ne ñaari at ñu ngi fi projet bi pare na ak quatre-vingt-dix pour cent def ci dix-sept milliards muy dem ci quartier yu bëree bëri jël Daaru Xudóos jël Gede jël Surra jël lenn ci guy mbind ñu yóbbu ko Mbàkke muy jëf ju mat sëkk jëf nga jóge fii bërki démb nga teg fii pose premier pierre benn centrale électrique boo xam ne soixante-dix milliards de francs CFA la nga teg ko ñu fas yéene ko liggéeyal Touba ngir jafe-jafe électricité mën a jeex ci dëkk bi yemoo ci loolu nga jóge Promoville bi gis nañ ko muy cor corniche bi gis nga tali bi nga xam ne torsion de douze kilomètres la nga def ci treize milliards tey mi ngi pare na quatre-vingt pour cent yaakaar naa ne loolu ku ko def. jàll bi ku démb yabel fi sa ministère de l'intérieur bi nga xam ne ne ndox moo xam ne mosul wàcc Sénégal depuis ñaar fukki at yi ak juróom wàcc na Touba de cent quarante millimètres nga yebal ko mu ñëw fii ànd ak service yépp ak ministre yi ñëw ñu def benn projet boo xam ne vingt-sept milliards la quatre milliards yi tàmbali nañ ko liggéey bi démarré na mi ngi ci soixante-dix pour cent ngir ka jafe-jafe yi nga xam ne moom moo moo nekkoon Kër Ñang ak ndaamaatu dootu fi am ba àddinatu tukki loolu rek dafa doy liggéey sëkk waxuma la nga jàllat bi ko nag def fi lii nga xam ne kenn am na musu koo gis ci sous-région bi amagul Afrique am boo boo appareil yi fi nekk daaf wax na ko léegi ñaar fukki service ak benn ñoo fi nekk yoo xam ne nii benn bu ci nekk dafay faj nit ki ci jàngoro yi ko dal loolu benn hôpital niveau 3 boo xam ne mi ngi ci 300 lits yaakaar naa ne ci dernière génération nga def ko R plus 1 ci quatre hôpital yi nga xam ne moom nga inauguré ren te liggéey ko ci réew mi 1960 ba Sénégal amee indépendance ba léegi musuma gis. na at ci àddina mu ñu mu ñu inauguré ñaari hôpital waxuma laa di inauguré ñeenti hôpital waxuma laa benn niveau 3 boo xam ne niveau boo xam ne mille trois cent lii la feebar bu nit feebar ci àdduna bu la yàlla soxlawul bu fekkee ne buy wér la boo fi duggee da nga wér seen da matériel bi nga fi indi muy équipement di dernière génération boo xam ne képp ku ko xool loo xamante xamante dara da nga xam ne bii ku ak jii jëf ku am yéenee ko jëf ku bëgg fi muy jëf la waaye ku bëgg Serigne Mountakha nga ndem comme ni mu la bëggee Serigne Mountakha nag yàlla na yàlla guddal falam te wéral cëram ku la bëgg la ndax dangaa ñëw fii mu ne la Serigne président Serigne Touba laa lay boole. yaakaar naa ne ku sëriñ sëriñ Muntaxa xalifa général de Mouride boole ak sëriñ Touba dafa naa ne kere bi mu ko waxee li nga bëggoon lépp am nga ko ndax ku li sëriñ Touba moom képp ku ko liggéeyal da nga ko gis képp ku ko liggéeyal li euh, Ablaye wax léegi boo tëddee booyee boo nga nelaw te te nag monsieur le président de la république asgor asgor rek lay doon koo teral rek mu yéene la jàmm. ndax nit bu bëggut kenn dana bëgg boppam te teral nga njaboot ak sëriñ Touba gi ba ñoom ñépp mooy sëriñ sëriñ bi ak i bokkam ñoom ñépp maase nañ sant la cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul ab yemukaay li nga mën it lépp nag def nga ko mooy luñ ne la jaadu na ci dëkk bi bëgg nañ ko nga def ko lu la sam xel may nga def ko loo njëkkati muy ñaar ne bëgg naa ci def ñaari ci ñaar wala ñett ci Sénégal muy infrastructure nga ne Touba laa koy njëkk a def loolu li nga li nga war lépp def nga ko li nga man lépp def nga ko kon nag ñoo ngi lay dalal de la sant ci turu population dëkk bi yëpp waaye ci turu njaboot ak Serigne Touba gi yëpp Cheikh Basir dana fi ñëw léegi waaye ci turu mbooleem jigéen ñi Sénégal Touba yi waaye ci turu mbooleem sones bi ñu ngi la ciy sant di la gërëm di la ñaanal li jëf ji rëy rëy nag nit amul lu dul kim yaakaar yow yaay per de la nation yow yow lañ yaakaar li ñu bëgg-bëgg ak ni dëkk bi di màggee mbooloo mi di bari Touba di mbu dëkk boo xam ne mbubb moo ko dagar ren bu déwénee boo ko ko sololee mu rém mu manqué ko loolu dañu la koy leeral rek sa jëf ji nag rëy na ba taaga taxawaat di la wax leneen defe naa ne du neex deret waaye nag gannaaw dañ ñu fee teg di ñu liggéeyloo nga ñu nekkal la fi te yow loolu rek xam li xew rek mooy sa yitte ba nga faj ko ñu ngi lay xamal ne bëgg nañ ko jàppale suñu senes bi lool ndax dëkk bi dafa bari xale dëkk bi dafa bari yàlla dafa dogal muy dëkk bu rëy bu bari ay gone te liggéeyukaay bariw fi bariwul ay entreprise amul géej amul port commerce rek moo fi nekk ak dawal moo xam taxi la moo xam sareet moo xam oto moo tax ñu de la ñaan ay formation ak ay financement donte ñi ngi fi yebal ñi ngi góor góorlu muy fat daane ñëw na fi mi ngi def lim man liggéey na fi liggéey bu rëy ren deer mi ngi fi mi ngi fi liggéey liggéey bu rëy waaye nag dëkk bi mbooloo mi ñoo bari xale yi ñoo bari te ñëpp toll nañ ci liggéey te fas yéene na yor seen waajur yi te yaakaaruñ ci ku dul yow kon su ma taxawee fii di wax faw ma tudd leen faw ma tudd jigéen ñi ci ay financement ñu jàppale leen ñaari problème rek laa ne woon danaa la ko wax muy li nga xam ne moom la dëkk bi soxla na ko def na ci nag def nga ci nag lu rëy rëy rëy def nga ci lu rëy def nga ci li nga man lépp waaye nag ab docteur boo ko taxawee moom da nga koy wax sa jàngoro doo jékki ba docteur bi dem nga naan baroon naa ko wax lii loolu man sañu ma ko parce que en tant que maire de la ville danaa wax li nga xam ne mooy li fi xew muy président muy affaire assainissement bi def nga ci 27 milliards. def nga ci 4 milliards léegi de tudd nga léegi 23 milliards yu ñu ci war a def waaye assainissement Touba kenn mënu ko assainir par parcelle il faut nga def étude générale xam li nga li nga ci war a def loolu nag mooy assainir. kor assainir 30 bi ba mu daj nga assainir corniche bi ba mu daj nga assainir 120 mètres bi ba mu daj ñetti ndong ñetti ndomb yooyu ñoo war ji nga def quatre euh, quatre ñeenti sortie benn bi dem Tindoodi comme Rahman benn bi dem Touba Fall benn bi dem wetu Touba Belal wala yoonu daru Musi loolu suñu ko defee danañu tàggoo ak inondation loolu dama ne woon danaa la ko leeral rek ndax nga xam li fi xew ndax yow xam ko dang ko bàyyi xel li ci des des nag mooy corniche boo xam ne foofu nga jàdde tali bi ci rond-point bi mu ñëw fii ci hôpital bi nga xam ne bu ñu amee évacuation wala bu ñuy bu màggal ñëwatee dana décharger tuuti dëkk bi ndax fi mu nekk nii circulation bi mi ngi commencé bari ñu ci kaw ñëpp xam nañ ko léegi da ngay xool Touba da jóge ci jumaa ji bala ngaa dem poste contrôle deux kilomètres la danga fi def dix à quinze minutes mi ngi commencé am circulation loolu nag dama la ko yëgal pour nga xam ko ndax lépp loo xam ko ak loo xamul te loo xam da nga ko def yiite wasalaamaaleykum রহমতুল্লাহ